waaw journée tey bi dañu nekkoon fii di def final euh, le prix national du conseil supérieur des maîtres coraniques du Sénégal pour le concours coranique bi nga xam ne moom mooy troisième édition gannaaw bi ñu defee le quinze bales ak les seize présélection dans le quarante six départements ñu defee ko le dix neuf le vingt et les sélections dans le quatorze régions yi ci quatorze régions yëpp tey jii dañu ñëwoon ngir def final bi final bi nga xam ne région bu nekk da fa indi sa kanida wala candidate ñoo doon jongante fii eh, yàlla dimbal nañu affaire bi réussite na eh, li nga xam ne ci prix bi nga xam ne troisième édition bi nga xam ne ñu ngi koy jagleel présidence donor bi le chef de l'État son excellence monsieur Macky Sall président de la république ak euh, liggéey bu rëy bu mu defal daara alquraana ci biir Sénégal di ko jagleel tam suñu kilifa diine yi nga xam ne ñu ngi fii ci biir Sénégal patronage bi ñu ngi ko jagleel suñu ministre tutelle docteur Cheikh Oumar Anne ministre de l'éducation nationale di ko parrainé nag suñu xarit suñu mbokk ki nga xam ne jàmbaar la ku liggéeyal alquraana mooy El Hadji Abdoulahi jaa président directeur général bu Sénico département bu nekk euh, am nañu foofu bureau bureau boobu moo taxaw foofu ànd ak seen jury locaux def présélection bi région bu nekk tam am nañ ci coordination ñu taxawal foofu euh, jury régional ñoom ñoo ko def foofu bi ñu ñëwee fii nag ñu taxawal suñu jury national ci jiitalal oustaz Moussa Pouy mi moo ànd ak Ahmad Habibou Kane ak oustaz Babacar ka yàlla dogal nag Serigne Mouhamadou Mamoun Diop ñi nga xam ne Kawlax la dëkk moom la yàlla jagleel coupe bi moom moo jiite ñëpp nag ay jàmbaar lañ ñoom ñëpp seen quraan neex na seen quraan wér na sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp yàlla nag dogal na sam su fekkee ne ñu ngi war a def jongante il faut mu am kenn ku génn yàlla nag doogal na moom moo génn Sénégal c'est la première fois Sénégal di war a organiser grand prix international de chef de l'État pour le concours coranique président de la République def na décret bi te incha allah ci mois de novembre bii lay am léegi nag organ walla organisation wala euh, guide religieux ñi nga xam ne ñu ngi organiser ay concours national ci ñoom la ñu war a tànn ñooñu barke démb lañu jot invitation du ministère de l'éducation nañu indi ñetti candidat ñu jiite ñooñu ñeneen ñi itam danañu indi yeneen kuréel yi itam danañu indi de ministère bi ak comité de pilotage bi danañu dajalal ñoo ñëpp ñoon tam ñu defal leen ay compétition ñu génn ci ñaar ñoo xam ne ñoom ñooy représenté Sénégal ci Grand Prix de chef de l'État boobu bi nga xam ne c'est la première fois ñu ngi koy def fii ci biir Sénégal. sentiment wone ne. wax dëgg yàlla euh, euh, daara yi euh, war nañ leen a jàppale parce que ku gis initiative yi ñuy def muy initiative yoo xam ne comme lu ñuy wax toujours ñun dañu nekk war leen a gunge ñu nekk structure boo xam ne bii dañoo nekk si ministère éducation nationale yor lépp luy wàllu daara mais ñu ñoom nekk suñu partenaire tey nag sëñ Talla mi nga xam ne moo jiite conseil supérieur moo doon def tey sélection waa tànn ñettam yoo xam ne ñoo war a génn dem ci concours national bi parce que dañu war a jël euh, ñaar ñu nga xam ni si Sénégal ak yeneen pays yi nga xam ne toll nañ si fukk ak juróom-ñeent yoo xam ne danañ ñëw toftal ci Sénégal muy ñaar fukk yoo xam ni danañ def benn concours international ci njàngu alxuraan parce que dañ ci bokk parce que le fait que ñu créé inspection des daara mu nekk bànqaas boo xam ne da leen di jàppale ñoom bu ñu toogee tey ba président de la république dina génne décret euh, wax ne euh, bésu bu ñaar fukki fan ak juróom ci novembre sëriñ daara yi lépp luy doomu daara ñoo ko moom danaa tase ak danaa toog ak ñoom 9h ba 17h waxtaan ak ñoom waxtaan si wàllu euh, daara ba tey bu fu jógee keneen ñëw day continuer loolu ñun dañ ko war a saluer moo tax ñun ba ñu invité euh, sama njiit muy Babacar Samb munul ñëw ministre docteur Cheikh Oumar Anne wax ko ko daf ma woo ma nit en tant que chef division de la planification ma ñëw aussi parce que ñoom it yàgg naa liggéey ak ñoom 2015 ba léegi lépp projet damay ànd ak ñoom donc xam naa leen bu baax donc fii sama milieu la ma aussi war fi teewal ñooñu ñi ñu fi tànn nañ tey mérité nañ ko te war nañ ne alxuraan war nañ ko jàppale parce que dafa yàgg loo xam ni depuis onzième siècle ñu ngi koy am tey daara yi ëpp loo xam li tey mooy jàng jàngale français bi ba tax na si mesure yi nga xam ne président de la république jël na bokk na si loo xam ni tey war nañ jàppale daara yi ci 20 pour cent ci con fonds de concours yi dugg ci collectivité territoriale yi jàpp na siit na tey war nañ jàppale daara yi ci wàllu recenser leen ba xam naata daara boo nekk ci Sénégal war nañ ñaaxit partenaires yi ak yeneen ministères yi ñu mën leen a jàppale si wàllu bay si wàllu élevage lépp loo xam li rek daara war nañ ko leen jàppale pour ñu mën a dem am seen autonomie war nañ ko def loolu nag moo tax yii yëpp ay initiative la yoo xam ne dafay jëm si euh, wax dëgg yàlla ñu xam ne Euh, su secteur daara aussi dafa war a bokk ci éducation dañ ko war a dugal aussi parce que politique euh, nouvelle offre yi nga xam ne moom lañ am moom lañ lañ ko boole moo tax ñu war a ànd ak ñoom noo tax lépp lu war a def rek ñun aussi en tant que ay technicien nekk foofu te ñu dénk ñu ko war nañoo ñëw teew si seen bés mandaral laal ko wane na aussi le président de la république lu mu wax te it ministre bi wax ko ñu war a mën cette politique là war nañ ko mën a def loolu moo ñu fi teewal tey. alhamdulilah yëg-yëg mu am kay mooy kontaan rek ak ñaax suma bopp gën a yokk góorgóorlu gën a yokk muraajaa bi. secret bi leen lu ñu may ñaax di yokk muraajaa di yokk góorgóorlu waaw baax a baax di yokk muraajaa bi daal gën a euh, takkanteeg sama alquran bu baax a baax daal ñax yooyu laa am samay ustaad. Ah, alhamdulilah xanaa kay di ñaax samay rakk ak samay mbokk alquran leen wax ne daal alquran moom. xéewal booy ut daal demal si alxuraan waaw di leen ñaax daal ñu gën a jàpp alxuraan xam ne amul dara lu dul alxuraan dañ gën a takku alxuraan